ñuy wax mu ne danaa taal ma yore naa fii kii bi mu ne loolu danaa ko teg sax mu ne bu almet bii taal dëkk bi am naa ko am na bëri wax boobu ma ne kii moom kii moom Sénégal bañ Sénégal bañ mu ngi mu ne am na bii taal bi am na ko. mësuma dégg fenn fu Ousmane Sonko waxee ni. almet bii taal dëkk bi yore na maa la koy tegal yow koy bu la gën a metti maa koy tegal en attendant nga koy trouver. dama bëgg nga tontu ma ci leneen s'il vous plaît. lii rek ma tegale ko léegi. sarax ma rek ma tegale ko la màgget. non amul sarax ma maître soo bëggee jàppoo nii dafay xaw a. non non non may ma minute minute minute minute minute minute minute rek minute minute voilà voilà am mu ngi ni fii la koy waxee. bañu ma ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violent. bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk. fii la koy waxee. al almet gi ma doon wër boobu ba léegi pour taal dëkk bi almet boobu jot naa ci. pardon maître est-ce que xam nga lii nga wax ni tekkiwul li li nga bëgg a wax yow. du li ma lay wax ni lu leer ah. non non c'est-à-dire non non. xaaral Albert ji moom wut taal dëkk bi am na ko. laa lay wax ni xam mooy. loolu mooy lan contexte la ko waxee. ah dafay défendre non non waxuma défendre. ah kii ko défendre. non waxu jéemuma koo défendre. jéem la génne nga li ma dégg laay wax sama xalaat. li ma yëpp ci li ma li ma dégg man. li ma dégg jéemuma koo défendre. li ma dégg wax sama xalaat. ndax xam nga ni lu mel nii yow mën nañ la ko tegal fekk na du lii nga bëggoon a wax xam nga loolu damay bañ ëllëg mu dal la nga ni nga ni dal na ma